أعوذ من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه من سير سارة ابن أبي زيد القيرواني تنغا نمي طولان شبابون لأبنت له fi salaati ci nan lañu jullee alal ji ci néew yi wa duwaay ak nan lañu ñaanalee lil mayti ñeel néew li muy jàngale ci bunt bi mooy nan lañu jullee néew ak it yen ñaan lañ koy ñaanal ak nuñ koy defee <coughs> dégg jullit new nag dafa am farata yoo xam ne mun see ñàkk mooy yéene ak kabaar ak ñaan di ci diggante kabaar ak sëlmal am ñu ci boole ak taxaw taxawaayu taxawaayu julli ga am nañu ko ci boole yéene ci la bokk ak kabaar ak ñaan ci diggante kabaar ak sëlmal am ñu ci boole taxawaay ki gën a yee ci bi nag mooy ki nga xam ne néew bi dafa dénkaane ne na ko jullee ngir yaakaar ak yiwam nit mën naa yaakaar ci nit mbaax nee na ma diw jullee kooku moo gën a yee ci jullee ko gannaaw kooku xalifa bi nga xam ne moo wutu ñi moo gën a yee ci ko kooku kii ko gën a jege ci mbokk yi rek moo gën a yee comme ni ñu ko jànge woon ci gannaaw mbokk yooyu charte yi nga xam ni nag mooy chartaay julli mooy chartaay julli yëpp rek foo nga laab si toj laab si sobe suturaal sawara jublu xiblu bàyyi wax bàyyi jëf ju bëri kañuy jullee nag mooy kuñ sang wala kuñ tiimal bu fekkee sanguñ ko tiimaluñ ko julliñ ko jullee jullee gi ak sang gi dañoo taqaloo bu benn bi ñàkkee rek beneen bi dafay ñàkk comme nuñ ko jàngee woon jullee gi balaa ñu koy denc dañ ko war a def suñ ko dencee nag ba pare te wuñ ko danañ dem ci xabroom <coughs> ñu jullee ko bu dee yaakaar nañ ne yàqoogut <coughs> yaakaar nañ daal mën fa dañ ko jullee ca xabru dégg mooy buñ ko dencee ta jullee guñ ko julleeg néew mbooloo du ci sart dañ ko ci sopp rek dégg mbooloo mi dañ ko cee sopp waaye du ci sart nekku ne boo amul boo rek du baax loolu loolu ko mbooloo du ci sart waaye sopp nañ ci mbooloo dégg nga imaam bi jullee néew bi it su demee ba si kanam mu wala daal dara jot ko loo xam ni war naa mën a génn ci julli gi dafay wutal keneen rek mu mottali ko ko bu ñëwee rek xool fu imaam tolloon rek mu continuer dégg <coughs> su fekkee imaam dafay jullee ne bi fàttaliku julli gu faat gu ko raw xam nga bu doon julli takusaan fàttaliku tusubaar yàqu na waaye imaam bu doon jullee ne fàttaliku julli gu faat gu ko raw dafay continuer julli ne ko après door julli julli gu faat googu ndax julli ne mbiram yàggul <coughs> dégg ponk yi nag wax naa ne ñeent mooy ci wóor ne ponk la yéene kabaare ak ñaan gannaaw kabaar bu nekk ak sëlmal dégg ba ñu wutee nag mooy taxaw ñu ne farata la ñu ne du farata amma bu dee ngant nga am moom toog d'accord nañ ne mën ngaa toog su fekkee ne amoo benn ngant nga toog walla nga war jullee néew ba yaa ko def noonu rek sa coobare bopp da ngay baamuwaat jullee ko dégg eh. ndax eh, bu dee farata la dafa yàqu waaye bu fekkee danga am ngànt moom nga toog loolu dara nekkul ci dégg wa takbiiru lii mu kabaar yi alal di ci néew arbaa takbiraat ñeenti kabaar la nit kuy jullee néew na xam ne ñeenti kabaar lay def dire maa moom la wala imaam ñeenti kabaar lañu la koy jullee képp koy jullee nii daal ñeenti kabaar lay def ñeenti kabaar nag dagaloon nga di ko yokk dégg nga ndax dëppoo daal ñeenti kabaar lañ ko war a def nee na it moom la doon saxaaba yi def yonent bi loolu la doon def mooy ñeenti kabaar imaam bu yokkee ci ñeenti kabaar yi maam duñ ko xaar dañuy sëlmal moo xam moo yokk di moo ko tey wala ko imaam moo tey yokk ñeenti kabaar yi. wala dafa juum maamam yi sëlma rek duñ ko xaar moo xam imaam dafa gis ne yokk ñeenti kabaar ngir la wala du ngir yokk na ñeenti kabaar daal def juróomeel yéen maamam yi sëlma leen bu leen ko xaar ak lu mën a xew imaam bu wàññee kabaar nag matul ñeent bu dee moo ko tey ñoom ñëpp ñoom ñëpp seen julli yàqu na julli imaam yàqu na julli maamam yi yàqu na di la gannaaw gi dafa indi ñeenteel ba rek waaye wàññi na te moo ko tey yàqu na su wàññee ñeenti kabaar nag fekk dafa jamaj maa mm. moom dañ koy sabbaal ne ko subhanallah bu fekkee delluwut mottali ko hmm? ah, maa moom mottali julleem rek moom mm. maanaam def ñeenteel kabaar ba su ko defee imaam rek moo yàqule bu fekkee imaam bi sëlmal la ba mu yàgg te delluwut moom moo yàqule mm. bu fekkee imaam nag dafa sëlmal avant mu yàgg mu fàttaliku ne ah moom kay ndekki mm, ñetti kabaar defoon te sàbbaal nañ ko mu dem day day dem rek mottali kabaaru ñeenteel ba day dem rek mottali kabaar bi bu fekkee ñaari kabaar la amoon sëlmal mu dem rek mottali yeneen ñaari kabaar dem sëlmal la te yàggul waaye bu xasee ba sëlmal tam yàgg moom imaam di dafa bàyyoon kabaar bi si ñoom te ñoom moom moo yàqule waaye maa moom lañ mottali ñoom yaa nga xam mu la mm-hmm. bu doon yow kese di yaa jullee néew bi nga sëlmal soo euh, te fekk kabaar yi matut su yàggee julli ga yàqu na hmm. bu dee yàggul nag da ngay mootali kabaar rek loolu dara nekkul ci hmm. <coughs> yar foon na yëkkati yedde yi ñaari loxom hmm. fii ulaahun na ci kabaar ba njëkk ñeenti kabaar yi du kabaar bu ne da nga yëkkati si ñaari loxo waaye kabaar bu njëkk bi rek ngay yëkkati sa ñaari loxo nga ne ko bu kabaar bu mu kabaar na yëkkati na ñaari loxoom mu ne ween rafaa nem yëkkati na loxoom fii kuy takbiir ci bépp kabaar fala baas dee rek di ci nekk ndax bu nekk nga yëkkati sa loxo dara nekku ci nettal nañ ko jëlee ci Malik nettal nañ jëlee ci euh, Malik kabaar bu nekk nga yëkkati sa loxo teewu nag lañ sopp nag mu gën a siiw daal mooy kabaar bu njëkk bi nga yëkkati sa loxo yeneen yi boo su yëkkatee sa loxo même bu fekkee lañ sopp mooy bu njëkk bi rek nga yëkkati sa loxo bàyyi li ñu sopp rek nga def yeneen yi boo si sa loxo bàyyi li ñu sopp rek def kon garaaw te it nettal lañ ko jëlee ci Maalik moom moo tax ne kaabar bu nekk mën ngaa yëkkati sa loxo waaye li lëng mooy kabar bu njëkk bi rek nga yëkkati sa loxo loolu moo lëng ndax jullit néew am na kabar xarmaal wala amul kabar xarmaal dégg Kabar ya ngay kabaar kabar kabaar yooyu ndax bu ñëk bi kabar xamal la wala deet lolu borom xam-xam wuté nañ ci bo jappé na amna kabar xamal bu ñëk bi kabar xamal so xasse kabar ñu andi indiwaat beneen néew taaj ko te fekk yaang ci julli gi ah du dagan nga boole leen ndax bu ñëk bi kabar ngoo kabar xamal ba pere hmm. da ngay motri si bu ñëk bi ba sërmal door a bu ñaaral bi dégg euh lolu mo ñew ci tazib hmm. bu fekkee da ngaa jàpp nag kabaar amul kabaar xamal kabaar jullee ñëw rek la soo kabaaroon ba ci digg ba ñu indiwaat keneen mën nga koo dugal ci ñaana ku njëkk rek boo kabaaree kabaar bu njëkk ñu indiwaat keneen mën koo dugal ci ñaana ku njëkk rek parce que benn parce que kabaar rek nga def yaa ngi ñaan mu ñëw boole leen ndax moom benn boo xoolee dara rawu ko ah, am na ñuy wax loolu boo kabaaree kabaar bu njëkk. keneen ñëw dugal ko ci parce que kabaar bu njëkk bi du kabaar kii armal waaw waaye nag bu fekkee nag kabaar nga ba ñaan ba pare ba kabaaraat moom ah bu keneen ñëwee bul ko ci dugal ndax moom ñaan gu njëkk gi raw na ko su ko defee <coughs> lañ sukkandikoo nag borom sarax bi nee dafa mel ni lañ sukkandikoo mooy boo xasee kabaar daal bu beneen ñëw ñëwee bul ko dugal ci ñaan ak ku njëkk ka mm-hmm. nanga xaar ba sëlmal jullee ko julleeg boppam mm-hmm. te loolu moom la mooy wax moo nekk ci taajib yéene it mënul ñàkk ci jullit néew ponk la moom waxu ko waaye yéene mun cee mun cee ñàkk waaw yéene yéene yéene ci dégg nga dégg nga su ko defee ñaan gi it farata la moom cee ñàkk waaye ñaan ak néew nag moom dana ko wax loo mën a ñaan rek baax na loolu danañ ci ñëw boo yéenee julleeg néew da ngay yéene mooy na nga jublu sa xol ne fas naa yéene jullee néew bi teew nga teewul waale ne jullee ko fardu kifaaya la farataay bokkaate loolu na ko teewul waale dégg su fekkee da ngaa jullee néew bi teew rek waaye yéen a woon ne julli néew fardu kifaaya la dara nekku si julli gi baax na boo jàppoon ne néew bi jigéen la nga jullee ko ne ko góor la wala nga jàpp ne góor la ba nga jullee ba pare nekk jigéen la dara nekkut ci néew bi rek nga jubloon boo jàppee boo jàppee néew bi diw la ba nga jullee ba pare du diw moomu keneen la dara nekkut ci ndax la nga jubloon mooy ka teew sa kanam ak yow boo yàppee ne kii diw la nga jullee ko pare nekk keneen la dara nekku ci ndax nga jullee sa kanam rek kooku la ñuy compte <coughs> utig nag bu fekkoon ne tàdd gi ñaar a fa nekk wala lu ëpp ñaar yow nga jàpp ne kenn fa nekk jullee ko te kenn kooku ràññale woo ko xamoo kan la yow da nga jàpp ne kenn la rek nga jullee ñoom ñëpp ngay jullee waat dégg nga amaa bu fekkee rek am kenn ki moom xam nga ko ràññale nga ko nga ne fa nga yéene jullee diw moom moom ràññale diw moomu yéene jullee ko rek hmm? ràññale diw moom laa wax wuteeg bu fekkoon da rek kabaar rek ku nekk ci tàdd gi rek yow ràññaloo ci kenn kenn ku nekk ci tàdd nga fekk lu fa nekk ëpp na kenn ñoom ñoom nga jullee waat waaye boo ràññalee diw moomu yaakaar ne moom rek fa nekk nga jullee ba pare ndek mbooloo fa nekk. diw moom jullee julleem gi baax na waaye ñeneen ñi def moom foo nga jullee waat leen dégg <coughs> kon kon kon noonu lay demee soo yéenee jullee nag ku nekk ci tàdd gi dégg jàpp ne mbooloo la dangaa yéene jullee ñu nekk ci tàdd ñi jàpp ne ñoom mbooloo lañ mm. gannaaw ko mu leer na kenn la wala ñaar mm. baax na parce que kenn ak ñaar dugg nañ ci mbooloo dégg kon daal boo yéenee lu ndaw fekk dafa ëpp da nga julliwaat ñoom ñëpp bu dee amul ñoo xam ne da ngaa yéene woon seen jëm ba amoon ko ñoo yéene woon seen jëmm moom ñooñu da nga leen génne jullee gi baax na nga waa ñu des <coughs> su fekkee ne da yéene liim bu bari ndekk matut ko baax na parce que lim bu ndaw bi dugg na ci bu bari bi. Hmm? noonu la ñaan gi nag moom dafa war xatta maamoom ñaan gi may wax ne farata la ci jullit néew moom dana ko wax léegi dafa war ba ci maamoom bi dafa war a ñaan bokkut ak jàng faatiha <coughs> jàng faatiha moom warul maamoom te pourtant farata la waaye ñaan ak jullit néew dafa war maamoom ndax imaam ak maamoom yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ñaan yàlla yàlla ràmmu leen ci néew bi hmm. te ñaan moom ku nekk war a def dégg ñaan gi nag farata ci kabaar bu njëkk bi ak bu ñaareel ak bu ñetteel bi ndax kabaaram ñeenteel bi soo kabaaree ba pare dangaa war a ñaan wala dangaa war a sëlmal <coughs> moom lay wax ne wa insha bu ko neexee daa mu ñaan gannaaw kabaar ñeenteel ba lam doon naan ci diggante kabaar yee njëkk yee wala boobu bu ko neexee sallama mu sëlmal baa nga raabaati gannaaw kabaar ñeenteel bu makaanoo si sensé te du ñaan dégg maanaam kabaaram bu njëkk bi moom boo paree na nga ñaan bu ñaareel bi boo na nga ñaan lu ñu ko wax bu ñetteel bi boo paree na ñaan bu ñeenteel bi nag soo kabaaree rek bu la neexee sëlmal su la neexee nga ñaan la nga doon njëkk ñaan bu la neexee nga ñaan gëneen ñaan ñu yàlla yàlla ñu jéggal sax ñu ñaanal ñu teew ñu dégg waaye nag li li mbooloo mi jàpp <clears throat> mooy kabaaram ñeenteel boo koy kabaaral sëlmalal bul ñaan dégg <clears throat> loolu mooy ngiram mbooloo mi mooy kabaaram ñeenteel bi boo kabaaree ba pare da war a sëlmal waaye bul <clears throat> ñaan lu tax ndax dañoo wax ne ñaan ci jullig néew dafa mel ni jàng ci jullig farata rukkoo am ñeenteel boo rukkoo après sigg ndax da nga jang fo dara déedéet soo doon julli ñeent juri julli ñeent rakk nga rukkoo rukkoo am ñeenteel sigg rukkoo bu avant rukkoo bu njëkk boo rukkoo rukkoo bu njëkk sigg da nga ñaan rukkoo bu ñaareel bo siggee da nga ñaan rukkoo bu ñeenteel bo siggee da nga ko da nga jang lay ko wax rukkoo bu njëkk boo siggee da nga jang rukkoo ñaareel bo siggee da nga jàng rukkoo ñetteel bo siggee da nga jàng waaye rukkoo ñeenteel moom boo ko ba siggi foofu sujjóot rek moo sës waaye amut jàng amut jàng kabaar na tolloog rukkoo yi kon soo kabaaree kabaaram ñeenteel foofu bu fa ñaan dara loolu lañ gën a sukkandikoo ah waaye nag kabaar yi wuti naa rukkoo de parce que boo xoolee julli avant rukkoo yi ngay jàng hmm. te julli ñeent ñeent rukkoo la waaye la am na ñeenti jàng fii nag gannaaw rukkoo yi ngay gannaaw kabaar ngay jàng ñeenti kabaar la am lu tax amul ñeenti ñaan <clears throat> ay teew daal loolu lañ ko waxee amaa li sax nun wax lax mi tànn ko mooy boo kabaaree kabaar ñeenteel ba pare ñaanal hmm. dégg nga hmm, xalil xalil andi na ko sax <coughs> dégg nga <coughs> léegi nag muy jàngale yow mi jullee néew bi fooy taxaw hmm. néew bi bu dee góor foo war a taxaw loolu lu jar bàyyi xel mu ne wayaqifu dana taxaw al imaamu imaam wala kenn kuy jullee néew fi rajuli daf fii dafay maanaa ala fi rajuli ci buy jullee néew ay ala fi salaati ala rajuli buy jullee néew fii gii moom ci baatu salaat buñ xasaf la waroon dugg rajul gii la ko war a jar mooy alaa kenn kuy julli wala imaam bu ñuy jullee góor na taxaw ànd wasat ci ndigg la boo jullee góor taxawal ci ndigg la nga jullee ko bu dee imaam nga wala kenn kuy julli mm. dégg wa fii buy jullee almarati ci jigéen ay wa fi salaati buy jullee almarati ci jigéen inda man ki bay haa taxaw ci ñaari mbagg ya boo jullee jigéen te yow góor nga moo xam imaam la wala kenn kuy julli dafay taxaw ci mbagg jigéen nga <coughs> amma bu dee jigéen mooy jullee jigéen fu ko neex lay taxaw hmm. jigéen buy jullee jigéen fu ko neex lay taxaw hmm. waaye góor lañu wax buy jullee jigéen na taxaw ca mbagg ma mm-hmm. buy jullee góor mu taxaw ca digg ba mm-hmm. mm-hmm. <coughs> jigéen nag buy jullee jigéen fu ko neex lay taxaw waaye jigéen buy jullee góor moom it na taxaw ci mbagg ma hmm? jigéen buy jullee góor na taxaw ca mbagg ma li bañ mooy nga taxaw ci ndigg la sa xel am lu ci looy xelaat wala nga fàttaliku ko mu di la jax ba noo war a mën a teewlu waaw loolu lañ ci bañ nga seytaane dafa mën a jax-jaxase nit bu dul mu jaxase la ci mu jaxase ko ci néew bi it mën na koo fàttali daal loo xam ni <coughs> du teewloo ci dégg kon kuy jul kuy jullee koo xam ne yaa ngi moom bokk leen xeet yow góor nga moom jigéen wala yow jigéen nga moom góor taxawal ci mbagg ma ngir nga mucc góor buy jullee góor nag mën naa taxaw ci ndigg la jigéen buy jullee jigéen mën naa taxaw fu ko neex yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jullee na jigéen taxaw ca ndigg la pourtant taxawul ca mbagg ma ndax la ndax yonente bi sallallahu alayhi yàlla moo ko aar moom moom ay xalaat yooyu yàlla musal na ko ci moom kon loolu duñ ko ci ndax ñun meluñ ni moom sallallahu alayhi wasallam maamoom mi nag ñoom fu ñuy taxaw bu ñu jullee góor ak jigéen maamum dañuy mel ni rek julli mbooloo dañuy sàppe rek noonu lañuy sàppee sàppe ñoom ñoom mënuñoo ñàkk sàppi parce que boo bëggee wax maamum dañuy taxaw ci mbagg ma kon dañuy def benn raxasu bu gudd nii su defee loolu kenn xam mooy lan hmm. ñoom dañuy sàppe rek ñoom amuñ problème hmm. imaam lañ wax wala kenn kuy julli hmm. nag boo jullee ngunu ngaana dafay mel ni boo jullee góor boo jullee ngunu ngaana bu dafay mel ni boo jullee góor kon ngunu hmm. ngaan ak burantu danga koy si wàllu jullee néew danga koy jàppee comme góor kon nga taxaw ca ndigg la hmm. dégg hmm. nee na ngunu ngaan it bu fekkoon mooy jullee néew moom it dafay jàppee boppam euh, góor comme góor bu dee néew ba jigéen la moom ngunu ngaan ga na taxaw ci mbagg ma bu dee néew bu góor la mu taxaw ci ndigg la moom ngënu ngaana bu dant bi dégg waaye ngënu ngaana ko moom ngënu ngaana bu la de xeloon na bu koy góor di jullee taxaw ci ndigg la rek gën a sori parce que moo gën a wóor hmm? moo gën a néew bi na jàkkaarloog ndeyjooru ku koy jullee bopp niw bi ci côté ndeyjooram lay féete dégg dafay féete ci ndeyjooru ku koy julli waaye bu ñu ko féete càmmooy tànk yi faree faree ko ci côté ndeyjoor xam nga lu mu wax hmm? Hmm? bopp niw bi dafay féetee ndeyjoor ku koy jiite lu mooy nag ku ñuy jullee ci rawda yonent bi sallallahu alayhi xam nga tànk nga jël ko jàkkaar ko rawda yonent bi dafa ñàkk teggin lool hmm. moo tax bu ñu lay jullee ci rawda yonent bi bopp bi na faree côté càmmooñ ki koy jullee ngir tànk yi bañ a jàkkaarloo rawda yonent bi sallallahu alayhi ndax kuy julli ci rawda bi <coughs> xabru bi da koy fare càmmooñ dégg rawda yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa da koy fare mm-hmm. càmmooñ su ko defee comme que rawda bi càmmooñ la la firee bopp niir bi bu ko faree bu jàkkaarloo ndeyjoor rek tànk niir bi mooy jàkkaarloo rawdu ba te loolu du teggin kenn du jàkkaarloo kilifa tàllal ko say tànk moo tax yonent bi dafa am xorma ndax moom moom deewul sax ni ñoo fi nekk di wax rek waaye yonent nan lañuy jàngalee ne yonent yi ñu ngay dund seen bàmmeel mu romb yonent yàlla Moussa muy julli kuy julli dana dafa dee way shahid rek yàlla nee na deewul ñu ngay dund fa yàlla waxuma yonent yi far mm. moo tax di werante ci yonent Yàlla mën nañ koo gis mën nañ koo man damaa xamul lan la rek hmm? yonent <coughs> boo xam ne yàlla rek xam moo tax daje naa yonent yëpp ci rañaan nga jiite leen ñu wax moom Moussa sax moo ko wax naa ko dematal ci yàlla mu wàññi laag nangam nangam ku dee mën naa waaye demal ci yàlla mu wàññi laag yooyu hmm. te xaalis yonent yi génn ci moo gën a wóor dégg nga su ko defee noonu la ñuy tëralee néew wasalaamu sëlmal jàngal na kabaar yi jàngal na ñaan yi su ko defee mu ngi ci mu ngi jàngale sëlmal <coughs> wasalaamu sëlmal mina salaati si julli alal janaay ci néew taslimatun sëlmal la waaxidatun benn xafifatun bu oyof li imaam ñeel imaam wala maamu ak maamu kuy jiite néew bi daal dañuy bëgg mu sëlmal nànk su fekkee imaam la nag na fexe ba ki den nag moom dégg ko ndax ñeneen ñi mën a sëlmal waaw bëgguñ nga biral ko ci kaw bu dee imaam la daal nag ki den nag moom rek dégg dégg <coughs> maamoom nag du delloo imaam sëlmal moom it benn sëlmal rek jorul muy delloo imaam ndax lañ bëgg jamono boobu mooy gaaw a denc néew bi ndax bu dee xay la ngeen gaaw ko tegg seen doq yi bu dee yiw la ngeen gaaw ko yóbbu ci li nga xam ni mooy mooy teraangaam lu ngeen ko téye dégg sëlmal gii ne moom farata la dafay am al comme sëlmal ak julli asalaamaaleykum dafay am al comme sëlmal ak julli euh, moom dafa mel ñetti farata la indi kabaar ak ñaan ak sëlma yéene andiwu ko waaye waxoon nañ ci yéene taxawaay bi it andiwu ko taxawaay dañ cee wutee moom farata loolu farata loolu waxoon nañ ci <coughs> kon su ko defee juróom yooyu ngay jàpp mooy mooy farataay julli néew jullee gi ban tiyaaba moo ci am mu ne wa fi salaati nekk na si julli alal mayti ci néew xiraatun ab dog minal ajri ci tiyaaba wa xiraatun ak ak dog fi xuduuri daf nii ci teewee denc ko boo teewee julli gi am nga dog ak tiyaaba boo teewee denc gi am nga dog ci tiyaaba hmm. ndax yonent bi daf ne ku topp ab néew boo xam ne jullit la nag lañ lañ wax hmm. ngir gëm yàlla ak sàkk yoon hmm. nekk ak néew bi bañ jullee ko ba pare ci denc ga dana ñaari dog dog bu nekk dafay mel ni doju uxut waaye <coughs> ku jullee néew dal di dellu sa denc guñ ko dana am benn dog loolu wane dog boobu fi tamsiiri fi tamsiiri la war doon yaakaar naa fi tamsiiri ci misaal mislu jabali uxut comme doj uxut sawaaban ci tiyaaba doj bu nekk dafay toll ni dog bu nekk bi nga am ci tiyaaba dafay toll ni doju uxut maanaam su fekkoon dangaa jël doju uhud lépp dafa nekk wurus walla xaalis nga saraxe lépp li ngay am ci tiyaaba moog li ngay am boo jullee néew bi benn la xam nga nit dana yaakaar ne tiyaaba fële la ëppee fekk lu ndaw yàlla def na si tiyaaba goo xam ni début ko sax ci lu xéemale waaw am na ñoo xam ne yàlla dimbali leen dimbali goo xam seen jaamu yàlla dafa nir lu oyof lool waaye fekk boo ko doon natt ak jaamu yàlla yi nga yéem mu ëpp leen poids foofu te jaamu yàlla yu yooyu te bëri poids moo gën a baax ndax du bari ngistal mais yi nga xam ne nit ñi dañ koy yéem dafay bari ngistal ak lu ko yàq ndax di di profité si façon jaamu yàlla yi lu am solo la <coughs> boo saraxoon lu toll ni daju uxut ci wurus war a xaalis dégg nga mm-hmm. tiyaaba bi ngay am ci teewee julli néew bi moom ñoom ñooy tolloo boo ci boolee denc ko nag am ñaari siyaaba ñaari doju uxut ñii ne déedéet liñ bëgg wax ci mu ngi mel ni doju uxut dañ laa bëgg a jàngal ne dégg nga te doju uxut nag danañ ci ñëwaat léegi pour nga xam ni mu réyee tuuti waaw tuuti dañ laa bëgg wax ne la boo taajoon doju uxut ci balaas taaj tiyaaba googu ci balaas ñu tolloo xam nga tiyaaba gi bëri na de yow mi jullee néew bi rek tiyaaba ba nga am boo taajoon doju Uhud ci palaas taaj tiyaaba gi ci balaas ñu tolloo <coughs> ñu tolloo ñu ne déedéet bu doju Uhud nekkoon wurus nga sarax ko mook tiyaaba boobu ñooy tolloo waaye nag jullee gi rek laa wax demaguñ ci denc ga doju nag doj la bu nekk ci Medina moom la yoroon too ne na doj yi daf ñoo bëgg ñi bëgg ko xam nga de xam nga ne yonentu tànn gi mu tànn doj wam bëgg mooy na doj woowu doju foor la doju uhud ni mu fooree dem ba yàlla jagleel ko moom mu bëgg yonentu yonentu bëgg ko kooku kooku bokkut ak doj yi ndax nit rek dana nekk nit waaye bëgg yonent bi ràññale ko ci biir nit ñi ba bokkut ak ñoom dara bokkut ak dara bokkuñ jikko bokkuñ yëg-yëg bokkuñ xaal ndax yàlla daf ko tànn ci biir nit ñi ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi kooku xam nga ne boo ko doon boo ko doon tëkkaleeg dara lu foor rek koy tëkkaleeg hmm. mais doju Uhud nag bi bëggee yonent bi yonent bi bëgg ko kooku xam nga ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko doju woowu la yonent wax na ne boo teewee julli néew hmm. dangay am tiyaabu bu mel ne doju ko ñii ne déedéet loolu taxul yonentu juññi ko waaye loolu it mën na cee bokk dañ ne doju Uhud moo gën a rëy ci doji ndax nee nañ dem na ba si suufu juróom-ñaar te mboolem doj yi dafa jokk ci moom. xam nga dojoo boo ko buddi woon beneen affaire dem na ba si suufi juróom-ñaar te mboolem doj yi dafa jokk ci moom dojoo ku mën a def lu toll nii moom yomb de xanaa yàlla fulal la tiyaaba gi mais na doj wii nag la yonentu wax ne ne su fekkoon ne kenn ku nekk ci yéen dafa saraxe lu toll ni doju uhut ci wurus jotul genn wàll liibaru sama saxaaba kon xam nga ne saxaaba yi jot leen ci jëf yombut de doj yoo xam ni dem na ba ci suufu juróom-ñaar jokk ci mboolem doj yi nga saraxalu tool noonu ci wurus yow jotoo gën wàll wër saxaaba ñooñu bépp nga bale <coughs> kon su ko defee teewee jullit néew tiyaabu gu yem noonu nga ci am waaye teewee denc gi it tiyaabu gu mel noonu nga ci am su ko defee teewul nag yeneen am na tiyaaba gëmmal gi nga ko gëmmal juble gi nga ko juble xibla takk gi nga takk ci kiñ bi simmi yére yim dee teg ko fu kawe sang ko xenn ko dox ànd ak moom ba jullee ko teewee do rob gi gasal ko bàmmeel dégg nga suul ko foofu def suuf si ci kawam hmm, nooyal ay cëram yooyu yëpp boo ko boolee da am tiyaab bu mot sëkk waaw foo nga amee tiyaab bu mot sëkk ci taxawe néew ba waaw waaye boo teewee lu mel ni rob denc gi am nga dog waxuñ la nag lu toll ni denc gi moo gëmmal ku ñooyam tiyaaba wala nangam nangam déedéet waaye denc gi rek boo ko teewee bañ koy denc bañ koy suur mu ngi mel ni am nga tiyaaba bu mel ni doju uxut kon boo teewee lépp loo war a am dana bari de hmm? waaw yenn tiyaaba yi nag moo ëpp yenn nooyal cër yi julli gaa ko ëpp tiyaaba parce que yi ñu sopp la yi fardu kifaaya la dégg nga hmm? xam nga ne fardu kifaaya moo ëpp tiyaaba ñu boo teewee julli ak denc gi am nga tiyaaba bu mel noonu <coughs> sàngaay gi it moom it foor yi la bokk dégg su ko defee di teewee julli gi néew euh, euh, lu am lu am solo la teewee julli néew nag benn nga def ko euh, ndax euh, yaakaar waa néew bi rek ñi ñi deele da nga am ni na boo teewul ci ci dëjëm ba dootu la joxati lam loolu lay jox wala boo nga ragal ko rek tax nga dem teew am na ñu teew ngir loolu am na ñoo xam ni it tiyaaba lañ ci bëgg tiyaaba ak yàlla dégg waaye wax nañ ne boo teewee niw ba ngir jubluwaale ci sax ñooñ néew ko eh, wala boo nga fay leen teraang buñ la mos a defal eh, nee na loolu yi dara nekku ci du lore waaw ndax yaa ngi jokk ñay dund ak ña dee diire la nga def ko te yàlla tax moo gën a set waaye ah, nag bu fekkee da nga ci jubluwaale ne bëgg naa ñoom ñu kontaan parce que dëgg yàlla taxaw nañu sama bis sàngam xaaral ma teew ak ñoom ci bis bii loolu rek moo la tax a teew hmm? waaye teewoo ngir yàlla te ñu bëri ñu dem ci tax a teew rek sama mbokk la rek xaaral ma dem mënumaa ñàkk dem wala nangam nangam ñu bëri loolu moo leen tax a dem nee nañ loolu baax na ndax yaa ngi jokk mbokk gi waaye nag yéene ko nga xam ne yàlla rek a taxit. mooy gën nga xam ne yow niwu jàmbur sax da koy gis dem toog dem teew waaye koo xam ne ni woo ni woo dem rek dëgg boo dem rek sa mbokk la dafay nuru ne yow mbokk gaal tax di def lool di nag defal mbokk gi am baax na dégg nga bu leen aay nit ñi ñu teew ci dëj yi ak nu mën a demee ndax lu mën a xew rek njëriñ a fa rek ñaan gam ñaan rek yàlla mën na koo nangu dégg <coughs> su ko defee eh, mu war a dugg ci ñaan yi nga xam ni moom lañu war a ñaanal néew bi boobu moom lañ ci gaaw booy xaal wax fi duwaay ci ñaan àlla mayti ci néew xëy chey lu dul dara maxdudin buñ limité ñaanal néew amul luñ limité lu la neex nga wax bu la neexee nga ne allahuma yaxfir lahu allahuma axfir lahu yàlla yàlla nga ko jéggal wala nga ne allahuma arxamhu yàlla yàlla nga ko yërëm loo wax baax na soo ko mënul ci arab nga wax ko ci langa ba nga mm. ñaan ci julli ci arab nga wax langa ba nga man wasaare kulul kullu wala waasiun dagan la loo ci wax rek def nga ñaan gi nga xam ni moo war dégg nga wa min mustaxsani ma su ko defee ñoom foofu beneen dars moo tudd ko in uridu l islam mastata'tu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته